asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax Kanka Moussa la tey la départ bi incha allah face de l'homme tey lañ fi jógee quoi part de donc booy voyager dem Fuladu yaa xam boo nekkee ci la nationale c' est pas la peine sur ce numéro maa ngi noonu di ko ci commentaire seen Fuladu bus c' est la sécurité. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax Kanka Moussa la. T'as eu le départ Inch'Allah, face de l'homme une leen de jógee quoi pas de 14 ans donc pour voyager d'un fourreau du xam on est qui la nationale national, c'est pas la peine de te déplacer appelle juste sur ce numéro en nom du compagnie, comment bàyyi C'est un fourreau de bus c'est la sécurité. jungle.